fi àdduna toll fi yëngu-yëngu yu toll fii fi àdduna jaxasoo sëñ Muntaxa nee na bi mu gisee loolu moom gis na ne benn solution rek moo am mooy xam Sëriñ Tuubaa ku xam-xam ni xamale ku ne xamale yi ne ay jumtukaay yi nga xam ne dinañ fi mën a jaar ngir mën a wax ak àdduna ndax photo yi Serigne Touba yu bees yi bi mu ñëwee ñu indil ko ko euh, ginnaaw bi mu jaaree fi mu jaar muy ndimbalam de atum 2020 mu feeñ France wax ko ministre de la culture Aliou Sow ngir ñu dugal ko dans le patrimoine national loolu mooy dogal bu am solo bi nga xam ne ñoom ministre yi ñu ngi ciy liggéey